jërë ngeen jëf l'observateur mi ngi xëy tooy xepp ak i ronxañ Bintu Kanté moo fay jooy jëkkëram yëral xët mu njëkko yéenekaay bi Ibrahima Diop di tailleur bi ñu rey bërki démb ca Tamba cib jàppante bu amoon ci diggante waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar moom Ibrahima Diop jabaram la waa l'observateur seeti woon nee na leen ñi rey sama jëkkër nañu xam ne rey nañu sama yaakaar li ma gënaloon moo di Ibrahima Diop bu génnee ci kër gi buy duggaat ci kër gi doxalaat tànk boppam ba duggaat ci kër gi musuma woon a bëgg musuma woon a jàpp ne dinañ jël sama jëkkër di ko teg ci jaag di ma indilaat ci kër gi Mariama Adama Togo Guindo mi jur ndem si Yàlla Ibrahima Diop ni ñi doom paaka la ko jam ñett yoon ci digg ginnaaw gi jam ko it ci loos wi tiim naa ko deret ji ko ma bëggoon a xippi ay gëtam xool waaye ci laa gisee ne li am am na bu noppi Ibrahima Diop faatu na si Yàlla Ibrahima Diop yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne jébbal ko boromam démb ci talaata ji keneen ku faatu ca Tamba mu di Cheikh Touré ñu gënoon koo xam ci match watab waa pur bi ñu ne moo ko fiir waa ji ko doon dawal gendarmerie teg na ko loxo ba noppi nangu nañu oto ba tëye suur suwaa nañu ñaari fan ginnaaw la xewoon ca Tamba enquête ba ñu cay def am na lu mu feeñalagum am na ci ñaari nit yu ñu ci jàpp yoo xam ne ca vidéo ya ca lañ leen xàmmee ñoom sax dañoo amoon ni problème ak justice dawalkati jakarta yu bëri ak i responsable benn bokk yaakaar yéenekaay bi nee nañu teg nañu leen loxo su a nañu ca enquête ba te ca la ñu xamee ne chauffeur bi doon dawal bisu journaliste yi ab agent la buy liggéeye ca Mourchid TV libération mel ne ku naan ko déet chauffeur bi fiir Cheikh Touré jaar ci kawam jàll chauffeur boobee mooy liggéey Mourchid TV moo ko waxal boppam nangu li ñu koy toppee ca kanamu enquête kat ya enquête baak la mu wanee gum libé wan nañu ko ci xët bu njëkk lu mat ñaar fukki membre ak juróom-ñaar yu pur ña nga ca gendarmerie ak ca police ñu tëye service de sécurité bu pur yi journal bi nañu li ñu nangoo ci ñoom ci ay ngànnaay mën naa tukkal àdduna les éco nañu la xewoon ca Tamba ba ñaari nit faatu ci waa pur la ci procureur bi tuumal yéenekaay bi dollul ñu ci ciy xibaar nañu ngir bañ jëy ak musiba ju mel ne jaamoon ca Tambacounda di amaat ci campagne bi moo waral léegi police ak gendarmerie ñoo yore sécurité candidat yi réew mi quotidien xëy dëggal xibaar bi ci xët mu njëkk bind ko ci mbind mu leer police ak gendarmerie ñooy protéger candidat yi Sud Quotidien nañu Aly Ngouille Ndiaye jël na relais bi sécurité rapprochée bu candidat yi ci ndoddal ministre intérieur ca la gàlle léegi Le Quotidien nañu Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur blindé na juróomi candidat yi ci campagne électorale bi démb la def ab communiqué moom ministre intérieur bind ci communiqué ba ne sécurité candidat yi léegi mi ci loxoy police ak gendarmerie vox populi nañu milice yi doon topp sol ay tenue militaire kan ci candidat yi mu di Idrissa Seck Vox Populi mi ngi ñuy xamal ci xët bu njëkk ne rafetlu na dogal bi ministre intérieur jël jëm ci sàmmuloo candidat yi takk der yi anki dina kay mel ne ku naan ñu accam lii mooy médecin après l'enterrement réaction tardive maanaam jaan matt la ba dem nga topp ci watit wa di dóor candidat yi ci géopolitique bi di xëccoo bopp réewum Sénégal ñoo ngi dóorante ci kawi kàddu ubbil l'observateur Idrissa Seck cokkaas na Macky Sall ba xolam sedd nee na li may sàkku ci Macky moo di mu buub ay dëbësam dajalay kalma njangaanam te xam ne dafay jóge ci bopp réewum Sénégal Macky ak i kàddu yu mu yëkkati ca Kaolack mi ngi ci xët mu njëkk l'observateur candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Macky Sall nee na ci lu yàggatul dara di ngeen dégg ay candidat yu déclaré forfait ndax mënatuñu mititu biir la ñuy taafantaloo journal Source A nañu waaye kenn du Amadou Ba ministre économie chef de village yeeg imaam yeeg délégué de quartier yu Cambérène 2 yi fa la waxee moom Amadou Ba ne ñiy laaj réew mi di génne ay ngànnaay bés bu ngeen leen falee dañu ñuy rey